ñu ngi sant yàlla di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di tatagal gan gu màgg gi nga xam ne moom lañu yàlla xéewalee tey suñ ko waxee fii ci hadaratu Cheikh Ibrahim kenn du laajte kan la ndax àndam ak Cheikh Ibrahim kóllëreem ak Cheikh Ibrahim ñas képp koo xam ne taalibe bàyyi nga xam nga ko dund nga ko walla sa waajur dund na ko wax la ko li ñuy doon doon ndaw naam duñ ndaw sax waaye par rapport ak relation boobu mën nañoo wax ne ay ndaw lañ ñu ngi lay tatagal sëriñ bi yaag mbooleem ñi nga àndat di la wàccee ci sa wàccuwaay di sant yàlla bu baax ci ñëw gi nga xam ne moom nga ñëw tey ndax lii mën naa wax ne ndollal la te jëf yu mel mbir jëf yu mel nii ci jamono bii réew mi daf koo soxla jullit yi dañ koo soxla bu ma mboo ne euh, mboolem jullit yi dañ koo soxla kon ñi ngi sant yàlla bu baax ci li nga xam ne moom lañ santoon ñi ngi ciy dolli encore di sant yàlla kii nga seet si nag muy Cheikh Mansour Niass doom la ci Cheikh Mamadul Mamoun Ibrahim Niass di koo xam ne fa Serigne Mamoun tegoon tànkam foofu la teg tànkam kon tey ku mel ni yow nga xam ne ñi lay dégg ci réew mi ñi lay suivre

yéen ay nit ngeen ñoo xam ne yàlla teral na leen walis gouvernement yàlla teral na leen walis président de la république ndax seeni waajur ñoo ko ñaanoon yàlla may leen li ñaan yàlla ba ñu wax ko te ñoom lépp lu ñu wax luñ jëlee ci hadra ba la kon moo tax ma ne ci jàppale gi ngay jàppale président de la république ñu ngi sant yàlla nag ci kóllëre gi nga xam ne yéen ñaar am ngeen ko wala fasante ngeen ko ndax kóllëre la goo xam ne dana dundal réew mi dana yokk réew mi dana dundal diine ji dana yokk diine ji te ñun gëmuñ lu dul diine ji lépp lu ko yokk dañuy ñaan yàlla saxal ko te kóllëre gii de aw ma benn sikk ne luy yokk di luy yokk diine islaam la luy yaatal diine ji la luy suuxa réew mi la te luy dëgëral réew mi la kon ñi ngi sant yàlla bu baax di la dollee delloo njukkal di ñaan yàlla kóllëre gi yal na ko yàlla suuxa te yal na ko yàlla saxal yal na ko yàlla suuxat te yal na ko yàlla saxal yal na yàlla def leen ngeen di ay mag te def leen ngeen di mag ñoo xam ne fa way jur ya tegoon seen tànk foofu ngeen di teg seen tànk te yàlla na ngeen ci ànd ak ndimbalal yàlla. suma leen nuyoo li ma ci teg rek mooy tatagal leen ci seen kër sang bi Mbàkke dëgg-dëgg tey bés bu kawe la ci ñun. bés bu màgg la ci ñun ndax xam giñ xam sa dayo ndax amuñ benn sikk ne foo teg sa tànk rek sang bu mag ba moo fa teg tànkam muy Sëriñ Bamba amuñ benn sikk ne foo teg sa tànk rek sa jur wi moo fa teg tànkam yàlla def na bokk nañ ci ñi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel ci réew mi ndax Sénégal daf ñoo ñor amuñ lu dul Sénégal bëgguñ lu dul Sénégal fonkuñ lu dul Sénégal ba tax na léppi senegaal biiram ak biteem daf ñu itteel yàlla def itam ñu bokk ci ñi nga xam ne suñu bëgg Sénégal daf ñoo xiirtal ci président de la République Macky Sall suñu wóllëre ak moom. maa ngi fàttaliku 2012 ci deuxième tour yi ñu ànd ak sang bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Mansour mu jiite parti bu ñu wax rassemblement pour le peuple suñ woy jur wa Cheikh Mouhamadul Mamoun moo ko sosoon ngir muy jum taxawal diine ci biir yëngatu politique gi te amuñ sikki ne loolooy sa tànk ci weti président de la république biñ toogee ak président de la république jamono booba mi ngi recevoir ku nekk ci lider politique yi ak parti politique yi biñ ñëwee toog ak moom premier serviteur Cheikh Mouhamadul Mansour bi mu jëlee kàddu daf ko wax rek ne ko benn condition rek moo ma boole ak yow moo may boole ak yow moo may tàggaleeg yow mooy Sénégal. laajuma la loo ma jox wala loo jox sama parti laajuma la ministre laajuma la nangam réew mi rek a ma ñor te am nañ yaakaar ne mën nga dolli ci réew mi dara yaakaar googu moo ñu fi indi feek ñu ngi lay gis ci tànk yooyu ñu ngi doo say soldaar ci loo yëg ak loo yëgut foo ne ak foo newut waaye keroog buñ seetloo ne delloo nga dellu nga tànk gannaaw ci loola rek keroog ñun suñu ànd foofu la yem. bu yàggut daje ngeen Arabie Saoudite sëriñ bi Cheikh Mansour du ñuy umpe bim ñëwee nettali na ma lu bari ca yoon wa ak lim fi jot a junj léegi la ca xew lu ci bari wax na ma ko rafetlu sa taxawaay ci la ma xamal ne ma fasante woon ngeen wóllëre bam ko waxe mané ko lolou de xana da ngeen di fédali colère gi waye nak façon nañ ko bu yàgg jitu seen ak judd waye colère go xamné dañ ko sos ca yalla ta baye ko yalla ngir yalla rek gogo colère du rap du dé jamono june yalla dana ko beesal ci loxo ay ay ay ay ay nit ñu continuer wala kóllëre googu aw ma sikk colère kóllëre wayjur ya colère mam ya mom ngeen di doxal motax deug deug jotaay bii wala jóg gi nga jóg ñëw ci ñun séq tànk am na fu mu tàmbalee ci suñ xol yi waaye amul fu mu yem ñu ngi ci kontaan lool di la wax ne rëy na lool lool lool ci ñun amul genn ak ci kaw suuf gu ñu ëppal lii ndax xam nañ dayo bi xam nañ itam ñàkk jot gi xam nañ ne koo fàttaliku minit rek. da nga boole ci sa bopp dafa xaj ci yow waxuma la ak nag nga sol say dàll jóg ñëw ni nga ko defee ma ci gën a neex maa ngi la dégg nga naan ko bugguma la ko woon a yëgal loolu ku jëm sa kër rek ko ko ñemee nit jëm këram rek la ñemee dem te du yëglu loolu ma ci gën a neex Mbàkke jërëjëf yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla sàmm kóllëre gi olof dafay wax ne kuy teral nit rayal ko nag deret ji naw yi di tuur bu ko doyut bu lekkoon nag bi ba yey buum yi du suur motax tax yi nga jéego fi billahi da nga xamne amna am na fu mu ñu àgg fu mu ñu ndax ñun xam nañ teranga te li teranga kep la nak ndax sa jëm ji deug deug amul lu ko lu ko kawé mën nga teral nit ci sa pos ci sa am-am waaye boole sa jëm ak sa daraja jog ak ni nga jógee mbolo mi nga andat deug deug ko fonk rek ngay defal lool waye allah duñ la fatte mukk ci suñu ñaan. danañ la boole ci suñu ñaan guddi ak bëccëg danañ la fàttaliku fépp fuñ taxaw te am ci yaakaar danañ la fàttaliku danañ la tudd ndax xam nañ ne mission ngeen amee yéen ñaar ñii ci weti président de la république awma sikk ne ndamal Sénégal rek la ndax kenn comme ni ko El Hadj Omar waxee yéen ñaar ñëpp mën ngeen a dund walis président walis nguur ndax yàlla jox na leen nguur gu dul ràpp du ngeen dégg ex sëriñ mukk yàlla defal na leen ko bu fekkee am na benn ñes seen wala benn mbàkke mbàkke buy dundee santam du yéen ñaar yéen da ngeen di dundal sant wi yàlla na yàlla dimbali leen yàlla na yàlla dimbale leen yàlla na yàlla sàmmal leen seen kóllëre sëñ man suur mii nit ku baax la duma wax ne ndaw la waaye mën naa wax ne ndaw la ci at waaye kilifa la nit ku yàlla teg ci yoon la boo ko gisee mën nga koo foog sax nit ku ndax suufeel boppam waaye nit ku baax la nit ku am kóllëre la nit ku yàlla may dara lay yàlla ku yàlla may baatin la moo tax ma yaakaar ne seen ànd dana dolli président de la république jàmm te bu amee jàmm rek Sénégal am jàmm ñu ngi gën a dolli am yaakaar ci dëgg-dëgg ci réew mi. ak ci mandat bu bees bi ñu ko jox ndax seen taxawaay ndax moom wax na ma ne président am na fu la teg te man xam naa ne président am na fu mu ko teg yàlla na yàlla dimbale leen yàlla na yàlla dimbale Sénégal ci yéen ñaar ànd bii daal yàlla nañ dund bu bàyyee ko suñuy doom yàlla na leen yàlla may fan wu gudd lool lool lool lool lool wéral leen yàlla def leen ngeen di ndami lislaam afdali xalqillah sayidna muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa ala taabiin وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشاه احضر لنا في هذا المحضر في بنظرة تأتي لنا بالظفر بكي صبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلم بمان لي نيو بباح di la wàcce waay bi la yàlla wàcce bu ma la nuyoo nuyu naa képp koo xam ne njaboot yi sëñ la ndax mbégte bu rëy bi ma am ci peggoog yow fii sa kër di nuyu mboolem ki nga àndak ci ay sang ci ay kilifa ak mboolem ndongo yi nga xam ne ñi nga àndak ak yow di leen tatagal bu baax di leen wax bismillah ci seen kër yàlla moo tànn ay jaamam sedd leen ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nekk ay xalifaam ci kaw suuf di niital jaam yàlla yi di leen gind di leen ommat jëme leen ci yàlla te ñooñu moo leen tuddee dana tudd Cheikh Ahmad Bamba danaa tudd Cheikh Ibrahim Niass danaa tudd Hadj Malick si danaa tudd ñu bari ñoo xam ne yàlla cëral na leen ci may gu màgg googu sëriñ bàmba yàlla yàlla yokk leeram ta suñu ci barkeem may la gu rëy ñeel jullit ñëpp waaye rawatina Sénégal ku gis jihaad bi mu def ngir yàlla ak sonn gi mu sonn ngir yàlla nga xam ne kii may yàlla rek la mën a nekk moo tax njabootam fépp fuñ mën di nekk rek xéewal googu ak liggéey jooju ak leer boobu moo leen di taw waxtu bu nekk di leen gunge naka noonu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu may yi ko yàlla may foo dem ci àddina bi danga ko gis bés bi bés la ci bési lislaam yi loo xam ne dafa yëkkati lislaam wax dëgg yàlla bu ma sañoon danañ la tertu tertu bu rëy bu ma yégee yaa ngi dugg fii ndax yow sama soppe nga sama xarit nga te yàlla moo ñi boole suñu way jur nekkoon ay jant di niital jaam yàlla yi di leen dimbale te yàlla rekk tax di def lu baax ku nekk xam na sa wayjur bu baax bi diggante mag Mawlana Cheikh Ibrahim Niass te kóllëre boobu tey su dee jëmmu la roxo bi yow la ndax yaa koy dundal xalif bi nangul na la ko njaboot gi yëpp nangul nañ la ko sa tànk yépp doo dox caaxaan doo dox mbóosóor foo ne rek yaa ngi liggéeyal lislaam politique mooy li gën a tuuti mooy li gën a tuuti dafa fekk rek bëgg a jaam jaamu yàlla yi bëgg a dimbale nit ñi yërëm leen waaye baatin bi moo ëpp zahir bi fuuf te zahir bi mooy mooy politique bi mbiri àddina la dafa mënta ñàkk rek yàlla dajale ñu ci barab bi gën a sell ci kaw suuf muy màkkatil mukarrama ñi dajee fa ci lu dóor rendez président nekk fa fekk yaa ngi dox sa soxla man ma nekk fa di dox sama soxla moom it mu ñëwoon di dox si soxlaam mu yëg ne yaa fa mu def itte ju nekk pour nga ñëw fekk ko ci barab boobu man mu def itte bu nekk pour ma ñëw fekk ko ci barab boobu am jaamu yàlla bu fa jël kàddu boobu ji ngi tiim kaaba gi ñu nag moom ñoo bokk julli timis julli gee nañu kat tey daje bi li fi daje néew na fu muy daje ci kaw suuf ndax sëti sëriñ Touba ak sëti Cheikh Ibrahim Niass ak sëti Alaaji Malick si ndax ambassadeur bi mu ngi fa woon ak sëriñ Askia ture ce président daf fee ñëw li ko fi indi mooy ñaan lu yàlla ci lim jëm nañu nag yéen seen làmmiñ ni lu ngeen ci ñaan yàlla def ko wax dëgg yàlla keroog yëg naa ne buntu malaw laala ubbeeku na te bañ ñaanee yàlla daf ko nangu yàlla nag bu nangoo ñaan nu ko neexee la koy dikkalee moo tax ñu ngi ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla def fi salaam yàlla def fi xéewal ak naataange ak juboo diggante sénégalais yi ndax ndamal Sénégal moo la teree nalaw moo ma teree nalaw moo teree nalaw képp koo xam ne yaa ngi dox lu baax. li gën a am solo mooy li ñuy takkee mooy diine ji mu di diine lislaam bi nga xam ne tey la gën a soxla ay doomam pour ñi daje ci genn ak buum ndax yàlla dafa wax ci alxuraan alquran waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu na nangeen ngoy ci buum ak yàlla gi te bu leen tàggaloo wax dëgg yàlla sa tànk yi li ci yool ñeel ñu te nga yéene ñu ko yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ak taalibe yëpp ak képp koo xam ne yàlla boole na la ci Medina bàyyi yëpp ñu ngi lay tatagal ubbil lañ la suñ xol yëpp te xam ne da ngaa jóge sa kër ñëw sa kër maa ngi lay ñaanal yàlla bu baax ci làmminu kilifa yi rawatina sama mag ju baax ji Cheikh Hamada Niass yàlla la yàlla sàmmal boppam yàlla la yàlla téel boppam ndonool Serigne Touba yàlla bu la ci kenn ëppale lépp lum liggéeyal jaam yi jaam yëpp xaj nañ ci waaye yàlla la ci yàlla xaasal ak képp koo xam ne ñu ci sa gannaaw di la liggéeyal ñoo ngi lay gërëm di la sant di la wax ne incha allah tànk yi du yem ci bii waxoon naa la ne buñ génnee ci élection yi man danaa boo ma jàppalee bés rek danaa la gane si ba Touba tànk yi ñu koy dox ndax waxtaan nañ ci lu bëri loo xam ne ci wàllu diine jeeg ci wàllu àdduna buñ ci boolantee suñu loxo yaakaar naa keneen waru fee am leneen maa ngi lay gërëm maa lay sant di sàkku nga ñaanal mbooloo ñi fi teew yépp ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm ak barke ak naataange ndax gis ngeen sous région bi li ci xew yépp ci ay fitna Sénégal xamul loolu yégagu ko yàlla buñ ko yëg du barke nguur yi nag ndax nguur seen barke yi ci kër diine yi lañ ko jëlee may yàlla may waliyu yàlla yi nga xam ne ñoo nekk fi Sénégal jàmmi Sénégal loolu mooy sërru bi loolu mooy mbóot mi mbóot moomu nag pour mu sax nañ gën a bàyyi xel kër diine yi kilifa diine yi ak seeni barab te xam ne buñ fa defee buñ fa defut yàlla tànn na ko muy barab yoo xam ne nit ñëpp seen jubluwaay la dafay gën a yëkkati ko rek di gën a tedd والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعونك يا معين وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوغي تمبل سني كادو كي سنت سني mi nga xamee ne moo ñu xéewale jataay bu tedd bi eh, di yëkkati kàdduy nuyoo kàdduy ziar eh, di la ko jëme yow Serigne Mansour ci turu suñu kilifa gu tedd gi di suñu xalifa Cheikh Abdoul Ahad Euh, nin ko xamee ni ko waxe euh, lii day suuxat loo xam ne mag ñu tedd ña ñoo ko jëmbatoon ndax ñooñu dañ doon dund lislaam waaye dañ ko doon dundal itam ndax euh, ku ne xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne masalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim ka masali aljasadil waxid ida shtaka minhu udwun tadaa lahu saa'ir aljasadi bisahari walxumma nee na jullit ñi nin war a bëggantee nin war a jàppantee nin war a fonkantee dafa mel ne jëmmi doomu aadama ndax jëmmu nit ki cër bu ci mett rek jëmm jëpp ko yëg loolu mag ñi dañ ko doon dundal yonent bi sal euh, alquran moom it dafa wax ne innamal muminuuna ixwa fa aslixu bayna axwaykum nee na jullit ñépp ay mbokk lan kon na rafetal mbokk gi te jéego yi nag ci li rafetal mbokk gi ci la bokk ndax mbokk lislaam moo jiitu lislaam buñ sàmmee lislaam rek lépp day jàkk kon duma guddal ci kàddu gi li ci li ci li ci liñ ci war a wax lépp dañ dañuy tàmbaleel sëriñ bi rek eh, ngir mu àggale ko waaye kàddu yi daal kàddu yi mbégte la eh, kàddu yi jokku mbokk la kàddu yi fedd li wëllëre wi nga xamee ne mag ñu tedd ña eh, dañ ko daan dundal daan ko dox te li ngeen fi wax rekk Eh, yakarna naa doy na sëkk kon ñoo ngi sant bu baax di ñaan dajje bi eh, bañ a nekk sunu mujjug dajje waaw ah, ñuy daje ko ay yoon yu bare bare bare bare te suñu borom nangu jëf ci eh, ci barkeb mag ñu baax ñi aouzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ Mansour ñu ngi lay nuyu di am mbégte mu rëy nag ci teew fii comme na ma la ko wax woon ba nga xam ne woon nañu ca barab bu tedd boobu nga tudd léegi di Makka woon naa la duma fa dikk mukk te jaaruma ci yow lii suñ mbokk ma te ni wax léegi itam dëgg la bëgguma la woon woo ngay sonn ndax sama kër laa jëm si moo tax ma ma doxale ko nii waaye lu ma nisaroon la lu ma façon la lu ma amoon yéene la kon su ma amee occasion def ko tey foog naa ne faw ñu mottali ko ci kàttan suñu borom bi ñu dikk itam am na ay bokk yu baax yu ma àndal sëriñ Abdou Xaadir bi doomu suñu Moodu Moxtaar la sëriñ Bamor may doomu suñu Abdou Xujja sab suñu Moodu Xabaan ak ñeneen ñoo xam ne ay doomi cheikh lañu ay seet cheikh Ibrahima Fall ñu fi ay seeti cheikh Issa Dieng doomi sëriñ Moustapha Gaye ak ay mbokki taalibe ak itam ay borom xam-xam ku mel ne sëriñ Moustapha Diop bi mboolem école yi nga xam ne sëriñ Cheikh Mbacke eh, am na ko moom tey jii moom mi moo ko yor sëriñ moo ko yóbbu xatar mu dafa jàgge ñoom Basiru mi ak Ibrahima ñoom lépp loo xam ne mooy aju ci daayira yi ci kër gi ñoom ñoo ko jiite ak yeneen i bokk yoo xam ne ñu ci biir ak ñoo xam ne itam dañuy jàppale ci wàllu politique kon dafay délégation bu bu matale euh, ma am mbégte nag ci ci jokkoo gi euh, ndax naw gu ñu la naw euh, ci sa taxawaay wante surtout la ko jiitu mooy ngir mottali la nga xamante ne bii mag ñi mi kese Ibrahima mi nekkoon benn bépp combat boo xamante ne bii combat la woon bu lislaam waroon a xeex ci biir réew mi ñoom ñaar ñu ko ànd doon bokk taxawaay di bokk position ci yu bare bari ndax lépp lu nekkutoon intérêt diine ji rek yitteelu leen ñu amoon ci dogu goo xam ne kenn mënu leena ca jëlé jële tam xam-xam bu mat sëkk bo xamni ne xex buñ doon def xam-xam ba moo koy laytaay ba luñ ci bëgg suñ borom da leen ko defal moom motax ba ni ñu di ko ko fu ne ñu and fa dem fu ne ñu daje fa kéro rek ñu daje ma ko président man ko kat ya fi sunu way juree daje nañ fi Euh, moom itam mu rafetlu sa taxawaay sëriñ bi li mu waxut dinaa ko wax fii tey jii keroog président ci boppam moo wax ci làmmiñam daane ci diggante ñaari tur bi ma seetsee nangam la yëkkati ci xaalis mooy ay dizaine de million teg ko ci sama loxo ne ne ma lii maa la ko dimbalee ci campagne bi président ma ko wax mi ngi toog loolu day firndeel li nga moom réew mi moo ko yitteel ndax xam nga réew mi dafa. dafa ñu bari dañoo jaawaloo te day am ñoo xam ne dañuy atti seen bopp ci nit ñi te nit ñi yemuñu ku jóg wala lu waay yëkkati ñu ne xaalis moo tax waaye am na ñu rekk démb tey soo ko ñëw ñooñu xaalis ci tëdd leen moom nawloo gam ko nawloo ak fa mu ko teg att acte booy mu def bir na mooy att fondateur loole te loolu moo war a nekk sa moo war a nekk sa taxawaay moo war a nekk taxawaay bépp kilifa dinañ ci réew bi ndax li ñu war a yitteel mooy la yitteeloon mag ña mooy intérêt lislaam mooy taxawu doomu aadama yi mooy taxawu askan wi loolu nag dafa am posture boo war a am ngir man koo jëmmal te loolu yi keroog président seere na ko ci ci moom mu la am solo ndax mag ñi noonu lañ noonu lañ daan àtte bu noonu lañ daan àndee ak bu njëkk benn benn benn xeex wala benn jongante mus fee am te maa ngi dugaluñ ci seen loxo waaye noonu nañ ko daan dugale ñu mus a àndal loo jëfandikoo ci wàllu financement ci seen activité ñoom ñoo la ko jox daawuñu xaar ci kenn dara xañ na inversion am na am na ñeneen ñu dox leneen mais am na ñoo xam ne foofee la teg seen bët ndax am nañ ambition bu jéggi di lekk ay maccaat ak i ñàkk fayda moo tax euh, ma am ci yow ñu naw la ndax man loolu mooy li may dund di taxawaay boobu itam yaa ngi ko jëlee ci sa wéjur ndax gis naa ni taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci réew mi te réew mi mënee su koo defar te kilifa diine yi deful ci seen loxo mënee su koo defar te doomi daara yi defuñ ci seen loxo ndax am réew xam-xam du ko xam-xam dong du ko taxawal xam-xam ba day ànd ak jikko réew bu soo ko taxaw te jikko yooyu nag ci daara yi lañu koy defe ci dong yi ba tax bu ñu demee ba sunu borom def leen mag ñu am benn conscience bi ñu am benn taxawaay bi am benn yëg-yëg bi wante itam barke nekk ci ñoom bu lépp ñu teg seen loxo suñu boroom barke la te fii réew mi toll dafa dafa soxla képp koo xam ne doomu réew mi te man ci réew mi dara ñu jël sa loxo def ko ci ñu réew mi jëm ci kanam ndax Sénégal jàpp naa ne loolu mooy li nga xam ne moom la moom engagement bi nag nekkul loo xam ne lu lu yomb la ndax ñëpp duñu duñu comprendre ñëpp duñu am dégg-dégg waaye li nga xam ne mooy dala xel yi rek mooy li ñu Cheikh Ahmed Tidiane wax léegi ñu ne Cheikh ibrahim mi nga xam ne njëkk naa jël alxuraan def ko ci rajo dañ ni lii def aram ndax rajo daa aram kon loolu tolluwaay la am na ñoo xam ne nag ba tey jii foofee la ñu toll ci yenn yi ndax xaj na foofee la seen gis-gis wala foofee la seen xam-xam ak fa la toll ci jamono jooja nit ki bu fekkee njëriñ bi dafa nekk avance ci temps daw na Cheikh ibrahim Niass daw na suñu Cheikh Mbacke am na yeneen kilifa dina yu bari yoo xam ne daloon na leen dina indi sax incompréhension par rapport ak nit ñi mais li am solo mooy nga nangoo nekk li ñuy wax pionier nekk koo xam ne da ngeen nangoo xal aw yoon yoon waa xam ne day mel na ngay jëmbat garab te sax mu leer na garab gi kat bis bi meññi yow daan fekk nga génn àdduna waaye la am solo moo di ne nga xal yoon woo xamante ne bir na la ne yàgg-yàgg yoon wi dana jur njariñ te njariñ li doomi soxna yi ñoo koy taxawal ñoo ciy jaar ñooy jot seen gëdd ñooy doon li nga xamante ne bii moom la yor a doon ci réew mi ndax dañ cee bokk te waree su cee génne te mënee su leen cee génne kenn nag duñ la fekk fa nga toog ne la kaay jël sa wàll kenn nag duñ la fekk fa nga toog ne la ci nga bokk jënd gi sax day am ñoo xamante ne bii moo gën ci ñoom ndax mooy tax ngi def lañu bëgg waaye kenn ku nekk yaa war am yëg-yëgu xam ne lii sa responsabilité la xam ne lii lu dagat la xam ne lii lislaam tërëwu xam ne lii ngor maye nag xam ne lii njëriñu askan wi mu ngi ci ku nekk ca te am fullay doo ci déglu kenn te sëriñ yow foofu nga toll loolu moo tax ñu lay ñu lay sargal jële ci félicité man mii loolu rek ma sama taxawaay moo tax ba ñu gisee waxtaan woon neex na lool dafa mel ni mosuñoo tàqali ko moo tey may ñëw fii tamit mbégte mbégte la àndal di la di la xamal ne daal lañu ñu foo foofee ca barab bu sell boobee te ñaan gañ fa ñaanon suñu borom defal ñuko ko foog naa loolu mandarga ci na rek and bi inshallah dina dina dëgër and bi inshallah dina ñu may ñu aggal yene yi mag ña bi inshallah dina ñu may ñu matli na nga xamanteni mo moom la waajur ya doon dox te lépp njariñul bindeef lay doon yërmande la di nuyu mboolem bokki taalibe yi ñu ci fekk ak ñu ci fekkut dina xamal ne fii moom sunu sunu kër la ndax yàgg na ca maam ya la woon ca wajur ya la woon pour yi dong nag mooy li nga xam ne mooy li ñuy xeñtu ñu di ko xeñtu fii di ko xeñtu ci yeneen barab ndax loolu dañoo yitteel ndax gëm nañu ne la mag nga doon def ak doxin wa nga xam ne moom la yoroon ci benn le lépp xam ne li am solo ñu ko sëriñ waxe léegi mooy tool bu mag bi di toolub lislaam amul difference ci biir wëree su xajale ñun jàpp nañ ne loolu kat mooy yoon wi nga xam ne ci li ñu war a teg suñu tànk te ci lañ ko teg moo tax buy ñëw fii bu ñëpp jaawon bu ñu dem feneen mbégte bu rëy lañ ci am ndax dañu xam ne eh, dañu am sentiment wu ne ñi ngi def sunu sunu gan te loolu dafay dafa dafa am solo ci nit moo tax du ma dem mukk Porokhane delluwaat Touba te ñëwuma jaar loolu mooy mooy tànk yi daaw la ko jëkk def ren ji defaat ko di ñaan yàlla def ko at yu bare bare bare bare te bu dikkee fekk fi jamm barké bi dolli ko ñu sunu borom nak maynu ñu wax légui rek katan go xamné li nga xamné mo mooy sunu yéene ñu man ko agalé ba mi mébét ak sunuy bëgg-bëgg ci jamm ñi lepp yu aw jiw di lu baax lépp di taxaw réew mi suñu borom may nu wala day matale fu lu sa xol sedd rek sama xol sedd na di ko di ko ëpp ndax biir eh, dama ne fi ma toog nii tey jii fu ma war a toog la te waroon naa fee toog bu yàgg tey su dikk xëy na tey jii la ko suñu borom suñu borom dogal bu ñu génnee ci ba génnee ci màggal yi dinaa la jox bis nga dikk Tuubaa ñu bokk fa yem nga xam ne itam foofee kat sa sa kër waaye daal suñu suñu ko seet nañ ci ñu ngi mboolem njaboot yëpp asalaamaaleykum wa wa barakatuh